li gën a fës ci yëglekaay marhaban xiiruk ngaayo gi jëmal ko ci élection législative yi ñuy dëgmal fanweeri fan ak benn ci weerum sulet ci diggante Yewwi Askan Wi ak Benno Bokk Yaakaar moo gën a fës ci xëtu yéenekaay yi L'Observateur nañu bokk ko coalition Yewwi Askan Wi ci les élections ba léegi dara leeragu ci bu ñu sukkandikoo ci suñu naatango yi lenn waralu ko lu dul kàddu yu tukkee ci mandataire national coalition ba di Déthié Fall mi daal di xamle ni ab spécimen bu ko direction générale des élections daal di présentel amut benn photo loole waral L'Observateur nañu Yewwi Askan Wi la sukkandiku daal lànk ne du signé ab bon bi nga xamante ne moom la ko waa direction générale des élections daal di présentel tiire ndaxte jàpp nañu ne seen de liste nationale mi di Sonko abu fotom feeñut benn yoon ci document ba loole nag ab expert électoral daal nay xamle ci biir yéeni kaal l'observateur ne li a jur ci njeexital lenn rek la moo di liste coalition kenn du ko mën a gis ci bureau de vote ci joojule jamono yéeni kaay les échos ni teel a ñu gën a dogu jëmale ko ci seen rassemblement bi ñu namm amal ajuma gu ñuy dëgmal fii ci ndakaaru ñu am ci autorisation ak ñu bañ ci am autorisation lañ ci yemale ala kulli xaal daal nañu xamle ni dinañu amal seen boobule dajaloo yéenekaay Vox Populi dikkaat ci kaddu yu rote ci Déthié Fall mandataire national coalition Yewwi Askan Wi mi ni seen liste nationale ba su bokkut ci les jongante kon nañu jàpp ne élection du am ci Sénégal enquête ak yu tukkee ci Mamadou Oumar Ndiaye ak Abdoulaye Bambou Diallo sàkku ci Macky Sall mi nga xamante ni moom la ñu dënk réew mi ngir mu génnee Sénégal yi ci jaaxle ju ñu nekkee jëmale ko ci élection yu ñuy dëgmal ndaxte ñoom ñaar ñi daal dinañu jàpp ne réew mi ab dal la soxla fu mu toll nii rax si dolli itam njiiti réew mi di Macky Sall moom dong moom cundum moo yor caabi mi tax ñu mën a amal yile élection ci jàmm ak salaam ci réew mi Walf Fadjri Quotidien nañu yeewi askan wi ñu ngi woy di gën a dëgëral seen taxawaay jëmale ko ci seen ay mbébét ndaxte Déthié Fall ak yi àndandoom bu ñu sukkandikoo ci suñu naatango yi daal dinañuy lànk ne duñu ñuy dànkaafu di xamle ni seen manifester bu ñu namm amal ci ajuma gu ñuy dëgmal dinañ ko amal ala kulli xaal ñu autoriser ko mbaa ñu bañ ko autoriser yéen kaay la Soleil moom mu ngi dikkaat ci kàddu rote ci président Macky Sall ci ndaje mi ñuy duppe Africa CEO Forum d'Abidjan jëmale ko ci wàllum mbéy ak wàllum sécurité alimentaire foofule ci Abidjan moom njiiti réew mi daal dinay xamle ni Afrique bokk na ci ay jafe-jafe yu mu am bu ñu sukkandikoo ci le Soleil moo di ñàkkum engrais ak dépendance jëmale ko ci wàllum taw jàngeen jëf